wax yalla ma sha allah sant nañ yalla bu baax comme niñ ko santé on rek commencé nañ ko si bismillahir rahmanir rahim yeggalé ko ci alhamdullilah rabil alamin yaagar na li ni kuko gis mobilisation bi ak jeunesse bi nuñu def ni di nga gëna sant yalla bu baax kon li def rek ci cadre yu mujj moy féliciter équipe bi nga xamné moy équipe la maram badian féké ma ci bolé bi nga xamné gënaaw buñu amalé rencontre bi ñom ñom mujj am. deux mille deux zéro ci kaw Dagga Samb deux bi à un ci kaw Dagga Samb bi nga xam ne fii laa dëkk yaakaar naa mënuma leen a supporter waaye man kom fii laa dëkk moom waxoon naa ko euh, Fall waxoon na ma ko waaye dama ne ko man dama neutre parce que mënuma far fenn waaye ki far rek ki gañe rek moom laa àndal kon nag tey ji mun naa wax ne Lambaram Badiane laa àndak ndax ñoom la yàlla def ñu gañe ko oh, da koy jar parce que jeunesse bi moo ma ko jaral ndax bi ma commencé mbir mi di leen di accompagner waaye ma xam ne ñoom liñ leen di defal xam nañ ko gis nañ ne liñ leen di defal pour njariñ la gis nañ leen liñ leen di defal pour développement Sénégal la ñu ànd ak man depuis bu yàgg kon lu yàgg dëgg la waaye ñu dem a dem ba ci kanam ñu firndeel jël benn diplôme de reconnaissance bu taaru ñu ñëw jagleel ma ko kon ñii nii war nañu jar lu nekk. motax tay table bi ni nga ko gisee ni ma andil len li nga xamne lu taru li la lu jek li lu am solo li pour jaglel len ko inshallah rabbi ndax jar naño nek ño xamne ñu wara taxaw sen kanam la taxaw sen wet taxaw sen gannaaw pour accompagner len Omar en tout cas ma ngi euh, la fekke ma ci bolé de la Maram badian mi nga xamne mom mo gagné tay contre dag sambu waye nak di euh, encourager équipe bu sambu ndax daw fi lañ final bi. sixième édition bi te ñoom ñoo gañoon coupe bi kon wax dëgg yàlla àdduna nii lay demee Omar te ndox bi day continuer wax dëgg yàlla ñu ngi joxe rendez-vous l'année prochaine huitième édition tournoi Malick Ndiéguène fii si dàgg Samb man moom maa ngi fii di liggéey si commune bi rek askan wi ma fi faloon nag bu ñu gisee ne li ma fi def lu jëm kanam la li ma fi def lu leen doy la ñu tegaat ma fi rek kenn di leen man dara te ñun ñëpp yaakaar nañ ne dëkk boo dem wala commune bi foo dem

tey jii ñu ngi daje fii te avant loola bi njëkkee ñëw liñ njëkk a def parce que aussi waxkat yi dañuy wax rek li njëkk a def mooy dañuy changer parce que fii ASC yi nga xam ne ñoom ñoo fi amoon reconnaissance juridique ñaa ñeenti ASC la woon monsieur le maire ne ASC pour mu mën a bénéficier wu ci yenn kii yi mooy moo mooy mooy nañ leen utal reconnaissance juridique yaa ngi dëgg ñu utal 21 ASC reconnaissance juridique 21 ASC yooyu fi mu toll nii chaque année daleen leen di subventionné ren subventionné na 25 ASC yoo xam ne am nañu reconnaissance juridique appuyé 15 ASC yoo xam ne amaguñ mu jox leen ku nekk 20 mille francs ne la ne la léegi nag naa la gunge pour ni nga xam ni nga xam ne noonu laa fi ma jaar ak sa naataangu ASC yi ba ñu am reconnaissance juridique yow aussi nga mën a am reconnaissance juridique. donc loolu monsieur le maire defal na ko ASC yi ba tax ASC yi 40 ASC réunir ñëw décerné ko diplôme de reconnaissance dawalkati moto Jakarta yi mu ne wax dëgg ak yàlla ñii ñu jar a jàppale lañ parce que kat mënoon nañoo nekk ci leneen mais comme ñu ngi daan seen doole jël seen moyen seen Jakarta di liggéey di daan seen doole di ci dundal seen i njaboot di ci dundal seen i seen seen seen seen famille léegi ñi war nañ leena jappalé monsieur le maire di leen di accompagner ba tax ñom aussi ñu décerné ko diplôme de reconnaissance borom dëkk borom dëkk yi borom dëkk yi mu né léegi nak borom dëkk aussi comme mom mo représenter état ci euh, ci ci ci dëkkam kon war nañ koo euh, war nañ ko defal lo xamné au moins ku ñëw ci dëkk ba dana xamné fé moy kër borom dëkk borom dëkk yi yépp ku nekk mu jox la drapeau nga def ko sa buntu kër mu utal la tampon kii ko euh, def ko sa buntu sa sa sa nga yor ko nga xam ne foo foo sa cachet nga xam ne foo signéeti rek ñu xam ne fii borom dëkk temps moom moo fi signé yaa ngi dégg léegi euh, remise yi bu koy fay ñoom ñëpp laa la wax ñii kii yëpp defal leen 10 pour cent ñu kontaan ci ñoom aussi kontaan ci ba nga xam ne. de ñoom aussi defaluñ ko décerné wuñ ko diplôme de reconnaissance mais ñëw nañ ba bureau ne dañ koy njukkal.